maa ngi ci Alpha Condé de mm-hmm. maa ngi ci ngóor si ko uutu de mm-hmm. mu jógee fi sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñëw mm-hmm. mu nekkaat taalibi ci moom uuf mbaxanaam cérémonie bu ñëwee ci suuf lay gàpparle ko uuf kaalaam uuf lépp di daw ci service keroog ba sëñ Sidi Maxtaar nelawee maa doon def commentaire ci Sud FM ci Sen TV doon def commentaire yi ñu ne moom la ñuy xaar ba mu yëg see taxawu ko nekk yii sëñ Muntaxa ci ñu war a toog la bokk keroog laay doo a xam ne nekk ci xalifa yi lay bokk ba mu toogee léegi ana lu ko naqari tous parce que ñi ko jiitu naqaralu leen fakkastalu leen paddu leen defu leen dara da leen a bi nelawee bàyyi ko fi day gundaandaat rek Muntaxa yokk bi yokk bi dara lu ko jaaxal amul te lu mu song yàlla may ko ci nag bu fakkastaloon sëñ Sidi Maxtaar baa mu def ko sëñ baar ñu ko jiitu su toogee bor bi ñëw kama tëddiinu tuddaanu moytu leen loolu kii toog war naa tiit am na ko am xel mi ci wetam xamoo ne ah loo foog am na ko am xelum toogaat gine moom it te fas ko yéenee amee ni mu ko amee njiit day vigilant surtout bu sa réew yëngoo nag man dama ragal ni ko Serigne Cheikh day waxee peuple bu fipp peuple bu fipp wala armée bu fipp musiba la waaye nañu bàyyi fipp ti waxtaanee ko nañ ko waxtaanee nañ ko waxtaanee waaye la ca Guinée leçon la de la ca Gambie leçon la de Gbagbo leçon la de eh, eh, ngóor si nu mu tudd ki faatoo Sénégal Hissène Habré leçon la de waaye Nelson Mandela guerrier la ku koy góor xeex ba réew ma am jàmm mu delloo leen nguur ga Senghor di dem ba desal may Abdou Diouf dem yoonam mag day desalal xale na ci jàpp bu baax lu concerné sénégalais yi na ci jàpp mooy kilifa réew mi lu mu déggati ci ñaar na na leen woo waxtaan ak ñoom baa muy yónni ndaw ci ñoom ñu waxtaan kilifa du seetaan waaw na góorgóorlu bu baax li réew mi moom na ci taxaw li ñenn ñi moom ah lu ca man mu def ko lu ca mënul mu muñ ko di ko ñaan mu dal rek na teey rek senegal daa xumb de te bëri na ku naan la yow a bis dina ñëw nga xam ne dala doon jay kon maa ngi koy ñaan mu góorgóorlu ñaan sénégalais yi ñu dal ñun ñëpp nañu dal ñoo bokk gis nga ñun bokkuñoo Guinée bokkuñoo Mali bokkuñoo Gambie ñun senegal benn maam la su Pa Abdoulaye Mbaye fii. Hmm. ñun ñëpp boole ñu benn maam. Hmm. benn maam la benn bopp la. su Xaadim Samb ñëwoon fii ñëpp lay boole mbokk ñun bokkuñu France bokkuñu Guinée bokkuñu Mauritanie ñun benn maam lañu soo ràpp ràccee ñëpp ñu dellu ci Xaadim nga ràccaa ñu dellu ci Maodo nga ràcc ñu dem ci Lat Joor hmm. nga ràcc ñu dem ci. Birima Ngóone mhm. maanaam ñun genn càllale lañu mhm. te Serigne Babacar nee na kaata woo xam ne foo làmb daj sa bopp nee na def ko ndànk kenn du kaata sa bopp bu baax mhm. Sénégal benn bopp la kaata woo xam ne foo làmb daj sa bopp def ko ndànk kon nañu am jàmm ay terroriste ay meroog bu mu yàq suñu réew dara nañu nekk ci jàmm rek ay terroriste fii ay xawma gaa yooyu nu ñuy tudd yépp nañ ko moytu réew mii réewu mag ñi la kilifteef gi ne fii nekkul ci benn réew kon lu ko yàq du yomb li ma xam daal mooy yàqoo fi mais yàq fi mante ne Serigne Cheikh dañ ko ne lu tax njaboot di ñeme kilifa mu ne tas yaakaar koo tas yaakaaram mu ñeme la dëgg la koo tas yaakaaram mu ñeme la am na koo xam ne ku tas yaakaaram sooy ay boo tiit gaynde gu ñu gaañ la du la baal dara mu jël paaka bi jaas teg ci puttu ndey ji ne ko yaay kuy sama baay mairie ni mu kii daa daa dof boo demee daa dajeeg doomu Abdoulaye ji wérul de boo demee kookoo ko liggéey mu ne ko liggéeyuma kuy sama baay laa wax mu ne ko nañ dem ci néeg bi mu ne ko dew ma ci néeg bi ca Kaaba ga lañ ma ko waxee fii nga may waxee kuy sama baay na leer yaay jaa ngi ñàkk tooy ñu doon tànn ceeb baa ngi ñàkk tooy xib wali mu xiraa ngi ñàkk tooy yaru leen yaru leen ndax ngeen umpule léeg-léeg nga wax dara sa maam wala ne la bu ma ko fi déggati noppil bàyyil diw <laughs> noppil bàyyil diw mhm. am na lu maam xam lu sët xamul tey leen mas naa toog ak suma benn wëllër bu ñu wax mbër gu jóob benn waay tooñ ko mu ne ko duma sa morom demal laaj ma sa ndey ba mu ko laajee ndeyam daf ko ne moytu ko yàgg na fi te li fekkee bari na li ci ñaaw a ëpp moytul jàmbur mag des koy moytu léegi-léegi nga dóor mag bal mu reere yëngal bopp ça veut dire li ma xam xamoo ko mu ne yaay ji nañ dem ci néeg mu ne ko demuma yaay ji ne ko kon nag dangaa bëgg dégg dëgg mu ne ko waaw mu ne ko sa bàyyi mu riira ki kiñ la bàyyile dafa amoon sàmm moo ko daan sàmmal arab dañoo am jom ak bañ bañ lu ak jomb jomb lu ak rëy mu takk mati daa yoom nekkul góor mu jël sàmm ba man sa ndey ma jël boyetu or ba ma amoon sa mu xiir mayoon ma ko ma jox ko sàmm ba dajeeg moom ca àll ba mu tëddee ma ma ëmb ca moo la jur ndax ñun arab yi bépp jigéen bu bu sa jëkkër dee te bàyyiwoo doom dañ lay doon sàmm boobooy sa baay mais mu xiir juru la ndax mu xiir yoom la mu ne ko yaa yàq nga sama àdduna mu ne ko yàqu ma ko yaa ko yàq yaa fekk ñëpp di moytu nga di ko laal bàyyil jàmbur laalaake la am na koo xam ne dangay ngay xalaat lu koy waxloo ak lu koy jëfloo mais bul bul bul commentaire nii la wali dum nu mu xiire yàqoo mu dem ne day tuubi naka la départ ni damay tuubi romb waa Kaaba ga Abu Jahal ne ko foo jëm mu ne ko damay tuub kii li ma wax dëgg la mu ni ko moo cam ki yàq sa àdduna ngay tuubaat yaa ñàkk fay rek ki taxaw fi wax sa ndey na daa njaaloo ne la doomi njaalu ngay dem tuub boo demee ñoom ñu xoolee la ko di mu ne ko wax nga dëgg bàyyil ma songaat ko ku repp ci xare loo jiin xeeb ko ah loolu la yaanaamaar bi nga xamee ni ñu bari jam dañ gis ni jamono ji daanaka day mel ni daal càdd leen topp gannaaw bi nga xamee nii